ah guddi xaadimu rasul kañ lay doon ajjuma 22 décembre ñaar fukk fan ak ñaar coor décembre kuy woote bu rëy kun fay fekk nag Sidi Mbuub Lamp Sidi Mbuub Xasaay Sidi Mbuub Sikurba muy bis boo xam ne nag àddina bi yàkkam nañ ko ndax bis la boo xam ne mësta lan la woote guddi xaadimu rasul sikkar conférence waxtaana sëriñ bi waxtaana yàlla yonte jël tey kan mooy Marème Ba maam Diarra Bousso waaye dañ ca rendre hommage yaayam mooy juróom bu jigéen Adja Diarra Bousso tey ñun ñëpp xam ci France nag conférence bu rëy boo xam ne adduna bi xam ne cey boobu gis ku koy waxtaane seen Xaadim Njaay Kaar mi ñëpp bëgg lan lay waxtaane Xaadimu Rasuul mooy tag ko bëgg a dégg lu baax ay mbokk ko mise bi nag vingt bis baa ngoog léegi nag Serigne Sidi Mbuub Lamp lan nga wax. ni ngeen ko déggee noonu nii la le 22 décembre allah fii ci Sorano muy guddi xaadimu rasul man ak yéen bu ko kenn wuute incha allah. di ñaanal nag premier parrain. Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké xalifa général des mourides ak kan première marraine yaayam Adja Marie Louise Gueye ca fa. kay jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Sëriñ Bamba xamul morom Sëriñ Bamba jërëjëf Sëriñ Bamba moo ñàkk ki